ndax da nga bëgg a solu sañse ba jekk dem ci xew wi ngay waajal demal Daaru Nahim business gaaw ñoo ci gën a gaaw ay jalabi yu mucc ay yu taaru lool foo bëgg dem moo ci gën a gaaw ay marakis dàll yu rafet lool ay montre yu rafet lool mbaxana ay kaala lii lépp nag mën nga gën yombee ca Daaru Nahim business télévision ngay seetaan saa suñ la neexee waaye nag li ci gën a neexati ba dàq ca mooy boo defaree sa kër ba noppi bâtiment lu mu ngande ngande wala Daaru Nahim business ñoo ci gën a gaaw wàllum courant ba lan lay wàcceel ba mu circuler fépp ci biir kër ca ndox biir kër gi waa Daaru Naim business ñoo ci gën a gaaw bokk na ci ay rideau ay darab ay tiise jasneer bàyyiwuñu benn tiise waaye it loo ci bëgg it ba mu àgg ay tiise jasneer yi nga ne na la ko ñawal ba mu àgg ah ay photogare yu rafet lool armus craft bàyyiwuñu leen parfum yu neex lool ca Daaru Naim business lay neexee ca lay gungune ah waaye yéen waa réew mi fàttewuñu waa bitim réew ah ci caagari yi caagari bu nu defar ba mu àgg ca Daaru Arona Home Business am na fa saa soo ci bëggee rek wooteel ci numéro yii ñu indil la ci ay cere yu nu defar bam ak lépp nag ci Arona Home Business rek nga ko mën a amee kon nag booy boo nga woote ci numéro téléphone yii gaaw 77 127 73 wala nga woo ko 76 601 04 44 wala nga woo ko 78 601 04 44 xéewal daal kenn du ko gis di wuti leneen faneen xéewal gaa ngi noonu ci Arona Home Business lépp loo fi jënd nag leen la koy indil ba fa nga Abdel. am naa la de. maa ngi doon rek ci jàmm. sama doom bi gën naa laa gis. ah yow kay boo leen ba tàggoo lan la ma xam nga. ay yow bu ma ñëwee ba tey gisuma la. ay ay ndaw yu con la ñu ndawoo. kan moo def ndaw yi xanaa bintu la. bintu daa mën dara. imburu taat ne ñu ngi. war ngeen def loolu. amoon sa damay woo. billaay maa fi nekk da ngaa am joomi koor. billaay mais yëngal lu xew. lu xew sa papa dinañ demee takk ak ñaareel. waaw ah, may naa rek. billaay loolu da la wax. mais paa bi dina defal dara paa bi damaa la ay preuve am leer naa ñu ah mun de tiit naa. waaye dara. yaay ay problème bi leen naa ñu laa yor si problème. non waaye demal la ko wan. déedéet la Abdel. loolu mu dëgg ko suñu diggante la yam kenn dootu ko xamaat. ko bi dugg rek. waa. xam nga léegi. baa bee def nii. xam nga xoolal ci xoolal xoolal ndox mi rek. xam nga naa cuukal bi. ak ni mu nekkee ci kër bi. te nag mi ngi noon nag. chaque jour. mu ne fi naa wóor la la doole mooy kilifa gu toll na moom du def lii. Ah. lii de am na peur. damaa ah. ñemee wax loolu. mun sa moom ko wax de. du ma ko ko wax xalaatuma ko sax. mais wujj moom jeex na jéggi kër. kii dina takkal wujj kii bu la naree takkal wujj maa jël bu réew de wan ko wujj bi bëgg a ah, xam ne kii dafa ñàkk a dem na dootu wujj amatul. wujj amatul la salaamaaleykum. maaleykum salaam. Abba. yaay booy. waaw Seydou waaw yaa jàpp. waaw kooku nag sax maa ngi nii rek. waaye sa waay damaa bàyyi. Ah. tey gën ngaa ñëw kër gi de. dimbali ma ngaa ñëw barka la fa ñëw. boo jëlee ah, de. waaye sa montre bi de. montre bi xanaa. dara na leer si hmm, ah, jamono. daar na yem na business. yow xanaa doo ci dëkk bi daar na yem business ñooy jaay montre naa si xaaral ma teg woon la original montre la bokkut ak montre foo yi ñu jaay baax te man li ma gën a neex ay jàllaa bi la ñuy jaay laylatul xadar gi moom fa dem moom jël sama jàng bu baax. laylatul xadar yow maa koy war a préparé. waaw yow de. laylatul xadar yow da ba gis nga dafa naa yëg. wër na yaa waa daaru na bi ñoo fi jaar de. te li ma gën a neex si ñoom loo commandé ñu nii la ko ay jàllale bi lañ koy jaay laay toxat rek fa laa la bëggee pexe ñu dem ñu soo bi naa dem mbaar ma. xam nga mbaar ma. yow fàtt naa sax war jëru nga lijjanti ay la. waaw waaw dama njëkk sa bi nga doon jël fii. boo yooyu gëmuñu dara. yow mii yaa gëmuñu dara da ngaa moo. loolu nga yaakaar ah ñaaw de mooy. waaw yow. xamal la ah, Sénégal xamal la moom fi nekk ah? ah. boo noo mën a mel. Hmm. amal xaalis rek. soo ñaawoon ba sax foo génn ñu ne wow. amul xaalis man nga yow. Ah, wax sa waay. ah léegi woon. waaw maa ma nga seet si léegi. waxal ci li wax nii woor nga tey wala wóoroo mun a fas sa kanam sax baag sëñ Bamba del woor sëñ bi nit ku baax day woor. waaye man boo demee yërëm naa la yaa moom doo ci dara. su ma yëg 300 bi nga soxla. maa sox si jëm ba ko. waa père na def booy am leen yar boo leen gisee seen moromu bàyyi père kenn du ko wax mag dellu leen cosaan dellu cosaan. léegi Abdel mu ngi lay bëgg a yàq de. waaw ah, man de per per. bàyyi leen per jërëjëf. waaw Baba. ngay nuyu sa baay. Ah, jugal alma ma toog. def dinaa am léeg-léeg nga ñëw a takkal wuju fi de ki nga bëgg a takk laa sa yoon nekku ci. maag sa ndaya. oui sa ndaya amul maag sa ndaya la yoon nekku de. tax nga xamadi maa bëgg a yab di ma santaas si lii nga may santaase nga war a bàyyi tax na sax tey dama defoon sama benn livraison. livraison loolu na business. waaye mu ngi lakk réew mi. damaa toog ca jàkka ja rek ma dégg gars yi di wax naan daaru nay business daaru nayem business ba tax ma def ca ñaari commande nii xam nga gars yi dañuy wax cak-cak mais moom cak ngay def mu indi ko ci saaseen ba tax na damaa wut benn indaaleel la benn <laughs> waaw waaw <laughs> ñoom seen yëf dafa garanti sax garanti la def gis nga ko waa daaru nay business ñoom ñooy def lii seen affaire yi wax dëgg yàlla tubaarkàlla macha allah ñoom moom dañoo gaaw te rafet la nen ba ci jàllaabe yi rek wax dëgg yàlla pure bi lañ ci yor qualité ay télévision lépp la ñuy jaay. ba ci kooku noonu sax waaw wax dëgg yàlla damaa joxoon numéro bi fii joxoon na ma numéro bi fii boo bëggee sax léegi ma jox la ko. 77 127 73 wala nga woo ko 76 601 04 44. 13 yow bari naa nag de bari naa bu yàgg doom yow doom yow da ngaa ñàkk sama vidéo bi nga yor du tax nga yem ma de dama lay wax lu leer maa ngi àgg ci sa ndey nag.